ma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 bokki M-Media groupe Nooru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci seydina muhammadin alayhi wa di leen baal xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul ñu suñu yàlla te déggal suñu rëcc rëcc di jël nuyoo boobu rek am siyaare di ko teg loxol kilifa bi ak cheikh Euh, Abdul Ahad Mbacké mu jot li ñu ko mbokk yépp di ñaan yàlla yàggal ko ci suñu kanam lépp luñ bëgg a liggéeyal islam rek yàlla jàppalal ko ko nu ànd koog moom di jaay Seydina Muhammad alayhi wa euh, kon tey ñu ñëw ci fatwa bi rek laaj bi nga xam ne bii moo fi jiitu moom lañu am tey ñu euh, ngi jóge ci sëriñ Alaaji Mbay sëriñ Alaaji Mbay day laaj xukkumu dafnil xayawaan al mayit day laaj lan mooy atteeb suul jur gu maanaam jur gu aw fas wala mbaam wala xar wala yooyu mu dee ñu suul ko lan mooy atteeb yi dañuy wax ne lam في الشرع نص يدل على مشروعية دفن الحيوان الميت wala benn xadis wala benn waxu boroom xam-xam yi nuy jàngal ci wax ab bàyyi ma maanaam bu dee nañ ko suul wala nañ ko bañ a suul maanaam daal amaguñu ab xadis buy tegtale ne ak jur bu dee dañ ko war a suul wala diisu ko suul loolu moom amaguñu ko waaye nag walakin in kaana almuslimuuna yata'azzuuna bi raihatihi fa yajibu ala saaxibihi dafnuhu xata la yuzi ixwaanuhu waaye nag dañ ne ak jur bu faatoo te yow mi ko moom soo ko suulut maanaam xeet ga day lor ay ay nit ñoo xam ne ñi dañoo làng moom su boobaa dañ lay wax maanaam nga gas ko suul loolu daal mooy atteeg euh, wàllu woowu mooy euh, ak jur daal bu dee ñu suul ko euh, amaguñ ci benn maanaam mën nañ ne jàngkati fiqh yi waxuñu ci dara waaye tereg suul gi maanaam terewuñu ko itam maanaam diglewuñu ko terewuñu ko daal waaye kon dañuy seet rek bu bàyyi ma bi faatoo su fekkee ne mën nañ koo sànni foo xam ne fii maanaam kenn du loru ca xet ga mënees na ko sànni waaye bu xamee ne nag bu ko sànnee nit ñi dañ cay loru kon dañu koy gas suul ko mooy gën beneen laaj bi ci topp al oustaz Alioune Badara Ndiaye moo ko fi indi yeneen ñaari laaj oustaz uh, namu nañ ko lool moom itam waaw uh, ci uh, am na solo lool ci liggéey bi day laaj xukkumul imtina ani zawaaj lil ibadati dane dafa am soxna soo xam ne si euh, dane daal moom du sëy maanaam du am jëkkër ngir daal gën a dëgëral ak jaamu yàllaam muy laaj nag ndax moom euh, soxna si am na sañ-sañab bañ a am jëkkër wala daa war a wut jëkkër loolu xam naa mooy atteeb dañuy wax rek lan mooy atteeb yi xam ne kii dafa bañ a am jëkkër kon dañ ko naan azawaaju mandubun ilayhi aslan fi shar'i maanaam sëy daal muy bu dee góor la mu takk soxna wala bu dee jigéen la mu dem wuti sëriñ sëy ak moom nee na dañ koo sopp ci sharia maanaam lu ñu sopp la wa raxabun fii waaye tamit lu ñu xemmem la lu ñu bëgg la wala yanbaghi al iraadu anhu kon ne ne góor waru a def su ko mënee waaye ko bañ a su ko mënee lakin tarkuhu jaizun xayru muharramin waaye na ne itam ñàkk a soxna wala ñàkk a wutab sëriñ bu dee jigéen la loolu nekkul loo xam ne lii lu araam la maanaam lu la may nañu nit ki bu dee góor la bu fekkee ni bëggute takk soxna maanaam may nañ ko ko mu bañ a takk maanaam nekkul lu araam bu dee jigéen la itam may nañ ko mu bu ko neexee mu bañ a bañ a wutab sëriñ loolu nekkut loo xam ne lii lu araam la ci moom kon dañ naa fala xaraja alayha in kanat la taxaafu ala nafsiha alwuqua fil xaraam kon soxna soosu dañu naan maanaam du am benn bakkaar ci bu fekkee ni eh, ñàkk am jëkkër googu moo xam ne moom la bëgg ngeen ne dafa bëgg jaam yàlla nee du ci am benn bakkaar du nekk lu araam ci moom su fekkee ni eh, inkaanat eh, laa taxaafu ala nafsiha alwuqua fi alxaraam bu fekkee ni mën naa sàmm boppam ba du def araam te mooy du njaaloo maanaam wàll yooyu maanaam du ci def dara su boobaa loolu wax tànn bañ a am euh, jëkkër maanaam ab sëriñ loolu sharia may na ko ko te dañuy wax ne azzawaaju la budda fiihi min rida zawjati wa zawji nga takk soxna nii wala soxna si am ab sëriñ ne faw bu dee ku góor ki la day fekk ne moom da koo coobare wala da koo bëgg daa nekk lu mu bëgg waaye bu dee jigéen it muy wut ab sëriñ day nekk loo xam ne lii maanaam da koo bëgg euh, bëgg koo def foofu wa min shuruti nikah ne bëgg googu bu dee góor la mu bëgg soxna wala jigéen gi bëgg ñu am ab day bokk ci yi nga xam ne yii mooy waral takk ab kon ne laa yu jubarul wala du ala zawaaji walal bintu kon ne ne euh, bu dee góor la kenn du ko forcé ci maanaam da ngay takk soxna waaye bu dee jigéen la it kenn du ko forcer ci dañ may wutal ab sëriñ kon euh, loolu daal ñaar ñooñu moom ku ci nekk dangay xool ba ba bëgg ko rek euh, nga def ko muy bu dee góor la mu soxna bu dee jigéen la mu wutal sëriñ euh, waaye buñ ko bëgguti te am nañ te sañ-saña bañ koo def waaye nag nee ne watun saxu wa yu bayyun wa yu bayyan laha ann hada yanbaxi waaye bu dee gis nga soxna si la kon kii mu laaj nii ne nag dañ ko war a laay biir leeral ko ne ko nag takk eh, maanaam sëy maanaam dañ ko daganal ci islaam waaye tamit lu ñu bëgg la ngir lima fii min ihsaanil farji ndax ne ne eh, ngir jigéen gi ñoŋal boppam sàmm cëram boobu ba du ca mooy yàlla du ca njaaloo la ko ca gën a mën a dimbali mooy mu eh, wutëb sëriñ wa basar ñu war raddil basari ak it euh, takk ñu takk ko mu am ab sëriñ ci lay gën a mën a téye ay bëtam ba du xool leen loo xam ne da koy indi fitna ci wàllu googu waaye itam wax sooleel warat yi waaye itam war nañoo laa biira soxna so ne ko kat charian yi muy lislaam daa bëgg euh, xeet wi maanaam di yokku euh, ci wàllu góor takk ay soxna yàlla bu ca yàlla de dogal ay doom maanaam xeetu Seydina Muhammad bi eh, di ca yokko mooy wa takk fiiril ummati maanaam dañoo sopp lool bëgg lool ñuy takkante ngir eh, xeetu Seydina Muhammad bi maanaam di gën bari wa xayri zalika min al ak di ko ca laay biir di ko wax yu baree bari yoo xam ne daal maanaam ab sëy ci lislaam maanaam am na ko ngir maanaam mu mën a nungu wuti ab sëriñ boo xam ne bi moo koy yor kon ci tënk daal yenn borom xam-xam yi dañ ne in kaanat taxaaful xatara wajaba alayha jigéen daal su fekkee ni euh, leer na ko ne maanaam bu amut ab sëriñ maanaam day mooy yàlla day dem di njaaloo ji maanaam wutab sëriñ mu takk ko sax bu boobaa day war ci moom wa illaa fala waay nañ nag bu fekkee ni mën naa garanti boppam mën boppam soxlawul boppam ci wàll yooyu tamit maanaam su ko neexee may nañ ko mu bañ a sëriñ kom daal euh, foofu buñ ko doon tënk rek dañ naan soxna si daal bu leen day nii mu ko waxee nii ku mën a téye boppam la wàll yooyu maanaam bu ci def lenn loo xam ne li ak njaaloo lay doon wala mu di mooy yàlla waaye itam da koy day gën a dëgëral ak jaamoom su booba charia da koy may mu bañ a wut ab sëriñ kenn du ko ca forcé te euh, booy xool soxna si comme ku mel ni Sayyidatuna Maryama euh, daanaka noonu la defoon maanaam bañ a wutab sëriñ ndax bu ñu jàng alxuraan ma ngay wax ne wa Maryama ibnata Imrana allati ahsanat farjaha waaw mi ngi wax foofu ci saar wi ne na ngeen def royukaayit ku mel ni Maryama ibnatu Imran nga xam ne dafa téewoon boppam bañ a wutab sëriñ waaye ba yàlla dogalee ni mooy mu war a am doom yàlla def na mu am doom te jaaru ci ëpp sëy kon daal euh, soxna soosu bu fekkee ni euh, comme dafa am xemmam téefëb yokku euh, xeetu Seydina Muhammad bi ne ne noonu muy gën ndax nag jaamu yàlla googu mu wax lu mu bari bari mu di ko jaamu su doon amab sëriñ yàlla dogal ñu am ay doom doom yooyu nekk doom yu baax di jaamu yàlla maanaam kon ak jaamu yàllaam day gën a bari day gën a yokku ndax doom yooyu euh, ñoom itam kon dañu nekk ay jullit yoo xam ne yi dañuy jaamu yàlla jaamu yàlla ko gën a bari gën a sakkan gën a bari beneen laajam bi nag moom Alioune Badara Ndiaye dane dafa am place te dafa jege ñëpp dafa jege ñi ak bërëb boo xam ne bii dañ fay mooy yàlla te léeg-léeg ay nit di fa jaar di ko laaj béréb boobu ñuy mooy yàlla fu mu toll foofu muy laaj nag léegi ndax lan mooy atteem nga tegtal nit ki ci bërëb boo xam ne bi dañ fay mooy yàlla waaye tamit su fekkee ne da ko gàntal mu laaj la nga ne ko xamuma ko te fekk xam nga ko loolu maanaam luy atte ba loolu lañ ko ci wax ci lu jëkk li muy ab jullit moom wóor te tegtal kenn ci béréb boo xam ne bi dañ fay mooy yàlla loolu moom du war kon euh, la war mooy buñ ñëwee di la ko laaj mooy nga gàntal leen gàntal ga itam ngir maanaam mu set ci maanaam waxoo lu waxoo lu dëgg maanaam li nga wax du dëgg maanaam ngir mu bañ laa dal maanaam da ngay wut bañ ko ne xamuma ko waaye nga fexe wax ko ne ko ku ñëw di la ko laaj nga ne ko jéggal ma ko ku ñëw rek laaj la béréb boobee am nga sañ-sañam ne ko mbokk mu jéggal ma loolu waaw loolu man mënu ma cee wax su ko defee su boobaa bu fekkee da ngaa yem ci wax jooju rek dara du la ca topp te it du doon wax yoo xam ne bii mën nañu ko méngale ak aw fen kon daal euh, béréb bu mel noonu jullit buñ ko laaj moom du am sañ-sañ yëpp euh, tegtal ko ko koy laaj wala bu ko defee da am bàkkaar waaye itam ngir nga bañ caa fen ne ko xawma ko te fekk xam nga ko su boobaa rek wutal sa tontool ku la ko laaj rek nga ne ko boobu laaj moom jéggal ma ko jéggal ma ko te boo mënee laaj keneen nga laaj ko ndax loolu moo la ci mën a génne yal na yàlla doolee defal taat bi jëy si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ذاك يودا وهو ذاك يودا لا وهو يودا فتاوى